Let's go. première capitale la zone occidentale française fii la islam jaar dugg pour nekk ci biir Afrique moo leen kilifa diine yëpp ñoom la ku yàlla may nag baaxee la nga am ku mel nii mu ñëw ci yow da ngay yor nga dal nga teey suy wax nga déglu ko su ñaanee nga ne amiin dañu laa diirante bu leen ñaanalee ba pare ku nekk jóg pulima ngir yàlla jëm sëñ Tuuba ak jëmam ndax ñi ci suuf ñun ak ñoom ñoo bokk benn dër sama ay yaay ci suuf sama ay ay doom comme yéen ñi nekk bii maag yéen ñoo bokk benn ku nekk nag boo toogee bañ xale ñi ci suuf dangaa bëgg def waabal te yàlla bëggul waabal keneen fi ngeen yem la nag koo xamee ni képp ku teew fii soxla boo mënti am ci am ci àddina bu dee lu laax te di teg ko ci islam ak alquran bu ñu nee boo ñibbee daal nelaw te boo yeewu du ci suba. moom dal rek la soxla bu dee wax nànk lay wax suy dox nànk lay def muy seq ak nawle kenn du ko xam bi sallallahu alayhi wa sallam ko def. ma leen di ñaan rek ngeen indi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp ñu ànd ak yéen ñu mu ñaan mu yeemi leen ngeen def ndax mag lañ kii rek te sonn na te li nekk ci kaw li ci suuf li ci suuf li ci bitee ba kon dimbali yàlla kese. maam aw fay dundal Mbàkke bal dundal yàgg fi lool sax fi dàkk sax fi dàkk sax fi. ngir bañ a guddal kii nga mu toog sa kanam Serigne Saliou mu moom Serigne Fallou boo ko jur di doomam kii nga gis ci biir sa ginnaaw muy Serigne Mbacke soxna May Galas ñu bokk ci seen bi gërëm ñu day bàyyi nga ko jur ñun ñi ci des ñëpp dañuy dëxañu ci biir ñooñu rek ñi nga xam ne daal bu doon dem ca kanam sëñ Mountakha ñoom lay àndal ñoom la àndal rek ndax ñoom la tànn di àndal ñoom fu mu jóg kon ñu am ñëpp indi leen si jóg waa Ndar nag xëy na yëngu bi jaar na ci ñoom ndax seen bëgg Sëriñ Tuubaa moo leen di yëgal dégg naa ci làmmiñu Sëriñ Saliou mu ne waa ndax dañoo bëgg Sëriñ Tuubaa te moom sëriñ Fall muy waajuram moo wax ni tuur ay rongañ ngir bëgg sëriñ Tuubaa moo dem jàkkalee mag faratam saf buddu mooxi li hubbil xadimi fardan arafu yonent bi yonent na yonent bi yëpp ne leen sama xeet xam ne liggéey la ma liggéey boo xam ne wenn xeet mu fi fee am ko fi feeñ ci liggéeyal kon sëñ ak lu koy bu jaaree fii yor makaarimul axlaaq te man ko sëñ Mbaye li ma jaaxal li nga wax ci sëñ bi ne dal rek muy mbiram mm-hmm. discours yi da koy def nit ñi na raj raj mu di ko daal ne man nag dalay sama mm-hmm. nii nga ko waxee rek di la koy wax kon sëñ bi bëgg na ci teewaay teew fii nañ leen may ñu jàll mm-hmm. kon mbokk yi dañ taataan jotaay bi bu sëriñ bi yëkkati ay kàddu ñu taataan ko buy ñaan ñu taataan ko buy jóg ñu jóg ndànk jëfandikoo li ñu wooyee makaarimul axlaaq te mooy jikko ju rafet ci diggante su diggante ak sëriñ te bu fi bàyyi koy jikko jikko yu rafet yooyu ñu doxal ko ba sax ci biir réew mi ndax makaarimul axlaaq kat mooy bal bi nga xam ne sëriñ bi taal na ko muy sox boo xam ne àdduna soxal na ko da ko jëpp jëpp jëriñoo sëriñ bi bëgg na lool ci na ci yu baree baree waaye rawatina nag ñoo gën ñëw ci kër sëñ Golbert Diagne bii nga xam ne àdduna xam nañ ko xam nañ ay taxawaayam ak melokaayam sëñ baa ngi bëgg loolu nag sa sa sa mbokk yi nga xam ne ñoom la fekk ci saal bi li nga ne ci mbooloo bi di gën dañ nekkee si ginnaaw di leeral sëñ taxawaay ak seen melokaan ci bi sëñ bi lool jërëjëf jëf nank rek nank rek suñu xol yaa ci ne ak ñu ñor ñëpp yi nelaw sama xel mi jëm ci talas baay benno Serigne Fallou gore ma bëgg lii ngeen def jërëjëf jërëjëf Babacar. jërëjëf. merci Babacar jërëjëf. jërëjëf. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. taala wa barakatuhu mi ngi ñëw ci nga borom baax la ndax doon borom baax mu waral bi nee na lii yombul de mbooleem ñi fi teew xol bu leer moo leen fi bi nee na Golbert sëñ Golbert li mu mujj a wax ci milliard nee na li xelam liggéey ci réew bi ay milliards la yoo xam ni am na ci sax yoo xam ne xamu ko moo tax sëriñ bi nee na moo tax mu wax ne sëñ Golbert bi borom baax bi nee amoon na ay tool fii ci daan fi ñëw waaye sëriñ bi nee musta jaar fenn ci jaar jaar mu mel nii lu dul lu bi ma xamee sëñ Golbert Diagne bi sëriñ bi nee xam-xam bi mu xam moo ma indi ci jàdd fenn ci Ndar bu ko defee bu ma su ma dëgg su saa tool gàtt sëriñ bi nee na bi ma fasee lool laa fas ni awma sañ-sañ ñëw fanaan Ndar mooy li ma wax léegi rek sëñ Golbert yëg ni jaar naa fi ba dem fii ci ndar ba dem te yëgluwuma sëñ Golbert bi nuyu ko ma ci la wax sëriñ Mbàkke mi ne ko téléphoneel ma la siñoor waxal ma papaam ne ne ko maa ngi fanaan ndar tey ci hôtel de la Fosse ndax hôtel bi ndax hôtel bi lu mat ñetti fan wala ñeent lañ ma dese defal réservation Golbert mii nag nit la koo xam ni nee na li ma wax nii seere yi nga xam ne ay jegeñaalam seere nañ ko ci biir léegi te ñi ko doon seere boo leen xoolee bu baax xam ne ñii xam ne ñii duñu waxal kenn lu nekkul ci moom ñoom seeni melo melo rek wane na kon sëriñ bi nee na li gënuma leen xam sëriñ bi nee na ñii fi wax na ci biir léegi ne baaxu sëriñ bi moo fi indi nit ñi sëriñ bi nee na ma wax ko ne ko bi ne ko man kat fekkee baax naa itam am na foofu bu ma fa demoon duñ fa def nii kon nii nit ñi def nee na ñaara ñoom ñaara sëriñ bi nee na ñu ngi lay gërëm bu baax di ñaan itam suñ borom dolli la fee bàyyi bu baax dolli say xéewal amiin dolli sa jàmm sëriñ bi nee ñu fi teew ñëpp sëriñ bi nee na ngi leen di ñaanal loolu nee na Golbert wax na ko léegi sëriñ bi am njàngaleem ci mbindam bari na ci loo xam ne yar ak teggin rek lañ sëriñ bi tudd sëriñ bi nee na boo jàngee téere bi ñu wax nax joxadaayil xaaj yi lépp téere bi yar ak teggin rek la Serigne Touba di jàngale li Serigne bi naan waraatu kandir bul bërin ay sukkunt foo mën a ne allahu ko wala wala fa wala ngay baj baji loolu sëñ bi loolu sëñ bi jàngale na ko fu ne Serigne Touba yar ak teggin lolam mbir jafé jafé nee lolé loolee wuté ci yar ak teggin yalla man na laa may lolé kon nak sa bu ngeen di and ak dal fu ngeen mën a toll rek ci yar ak teggin ci la nit di amee lim bëgg lu ko bett te am na kilifa gu daan wax Serigne Malick Bassine Sy dëkk ca Saloum moom magam Serigne Mor Khady sëriñ Malick Bassin si daan wax ni. bu leen xeeb jenn yàlla yooyu fexeel ba bari rek. di jóge fu ne di jëm si ci yow. sëñ Malick Bassin wax ne. yàlla na yu bari moog saan yu bari ñoo yem. sëñ Malick ne ay saan bu baree bu yàggee am ci mu dal yàlla na nga ñu bari it sëriñ bi nee noo nii la mel bu yàggee rek am ci yàlla na nga ñu yàlla nangu sëriñ bi nee na yàlla na nga yu bari nag li koy maye mooy yar ak teggin nee na nit koo sutural warumaan ko mu jël yàlla na ngay jëme ko ci yow sëriñ bi nee na léeg-léeg da ngay gis ku jaar ak xéewal yu gaaw bu rombee gars yi gars yi nag ah waaye ñun waa ji ñun moom ñun ak ñun ñu doon toog ci garab gi naan ataaya kañ la kañ la fi mel nii ak xéwal yi nee na ñenn ñi nga wax ne ko firi ne ah ñii de alal réew mi la ñu sàcc rek nee na nangam nangam nangam wax seeri wax daal dëkkale ko ci moom muy loo xam ne lañ ciy jublu ne muy alal ju bari nii muy trangu yu nii mu am ko nee na lañ jublaal mooy kii amu ci yoon rek wallaahi sëriñ bi ne wallaahi ci yoon la ko am nee na yàlla na nga ju yàlla nangu ci moom rek la yàlla na ju yàlla nangu sëriñ bi nee na moo gën a gaaw ci lépp lu nit di wut na di wormaalante di suturaalante te bañ ñaaw njort ci kenn di yàq nit ñi ak di leen teqatal di leen xas di leen jëw di leen ñaawal nee loolu yi bu leen ko def de koo xam ne kii bëgg nga yàlla teral la bu baax deel teral nit ñi teraanga ju rafet bu ko defee danga nga ca boole am lu baax ci àdduna te àllaaxira yi ngeen jëm ci lay raw ndax da am tiyaabo yoo xam ni ci teraanga yi ngay teral nit yi ci jooj jooju tiyaabo ku ko am bu ëllëgee faw nga fayeeku ko sëriñ bi nee na moom nag sëñ Golbert mi sëriñ bi nee fonk na ko lool nee koy faral di wax ne ko nee na wax naa ko léegi sax nee na sketch yi mu sëriñ bi nee na yooyu ñuy def lu tax maam solo nee na yi dafay mën yare ndax saa bu ndax théâtre yooyu saa bu ne luy defar rek ñoom moom lañ ciy doxal waaye théâtre yi nag day ànd ak xorom soosu nag moom la nit ñi di bëgg ba mu yóbbu leen ci ñu xool ñoom li doxal ñoom waaye sëñ Golbert mii nag moom moom yemul ci loolu de bala koo xam ñu invité ko ci télévision bi ndax léeg-léeg benn télévision invité ko ci mbir moo xam ne nee na mbir mu jaxasoo la ci réew mi ku nekk di ci indi xalaatam bu ci am njëriñ buñ ci invité sëñ Golbert mii observe sëñ bi nee na mi ngi ci barke Serigne Fallou Mbacké ci barke Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy sunu Serigne Touba ci jamono bii ñu ne ak Serigne Abo Mbacké mi nga xam ne mooy sunu Serigne Fallou ci jamono bii ñu ne yàlla faj seeni aajo yëpp fi dàkk te wér. sëriñ bi ku ci am tawat booy sooxaale wala boo sooxaale wul sax yàlla saafara ko. sëriñ bi ku ci am jafe-jafe yàlla saafara ko. kon nag jërë bi nee na nga noo xam nag tey. xam naa ne ku mel ni yow da ngay dox rek di gën gis ndax ndax kat nee am na nu ma la gisee waaye gis-gis bu rafet boobee nee yokku na tey jii xam naa ni gën di yàgg. nee lebih lu gis-gis boobu dañ ko ci yokk rek. jërëjëf. naanu moom aw fay sax fi dàq. waaye dañu ànd ak solo si. waaye bu defoon ak dal daal dana am solo lool. te bi ñaan la ñaan yoo xam ne. alors amin, amin, amin,